البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع السلام بالآل والأصحاب ربنا السلام خذ مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد صام وقام asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi leen nu yéen ñëpp kenn ku si sa tur sa sant di leen baal wax di leen baal wax te ñaan siyaare bi ñu ñëw lépp lu ñu fi ñaan ak lépp lu ñu fi def yal na ko Sëñ Tuubaa nangu ci jég fulal ñu ko te defal ñu kaw suñ jort képp ku fi ñëw yàlla na say sa njéggal xéwal boo bëgg ak loo loo bëgg ci dundu rek sa borom defal ko loon ci barke borom Tuubaa ñu ngi ànd ak daayira Touba Baxdaat ndox seex Touba Baxdaat Serigne Cheikh moo ko sos 1992 ci ndigal Serigne Cheikh Ndiaye moo moo ko santaane ñu sos ko kon loolu lu yàgg la li ko sabab nag nooy dan daan siyaare bi li ko sabab mooy ban tabaxee jumaa ji ñëw ci Serigne Saliou mbakk donc ñaan ci ndigal bàyyi Cheikh ñaan ko digal mu jox ñu ci bon ko tabaxee ba jumaa ji àgg Baye Cheikh ne li ñu Serigne defal nañ koy sant tax na bu bis bu ñëwee ñun maak sooy bu ak ñeneen ñooy laaj ak lu am suñu wërsëg boole ko Baye sant ko. loolu moo waral moo waral moo sabab siyaare bi looloo ko sabab sant siyaare bi sant ko sabab sant sant sant Serigne Touba ndax lu toll nii ku ko Serigne Touba defal lu baa Cheikh wax kaw wax li muy rëy rëy. Baye Cheikh la yàlla wërsëgale mu njëkk faa def jumaay murit kon loolu lu rëy ci moom ba tax na kon nan sant Serigne Touba ci loolu moo tax moo sabab siyaare bi boobaag léegi nag day yokk waaye wàññikoogul saa su nekk Kaolack gépp kenn ku ne dugal na ci boppam gis na ci boppam ñëw na ànd ak ñun ci liggéey bi sant Serigne Touba kon lu baax boo ko sancee sos ko kanam la jëm waa dellu gannaaw rawatina waaju baax lii mu sanc sos ko ñu ne ci boobaag léegi ku ne gis na ne ñu yokk ndax lu luñ daan joxe ful nañ ko ba mat fukki yoon ñu jox ko addiya daara ñi ci nekkoon xale yi yokku nañ ba bu fekkoon na ñett la ëpp na juróom la ci nekk léegi ci ci ci ay nit kon loolu ci liggéeyub góor ga la kon ñu ngi ñaan sunu borom foo mu nekk sunu borom uh, yeesal yërmande ci moom ndax liggéey bu rëy la def Kaolack dafa fekkoon Kaolack mu quartier ba gën a bon ci Passoire ci Kaolack mu sanc fa fàngoola nga fa lépp lu bon ma nga Passoire sunu borom dogal mu sanc fa. nekk ca la nekk nekk daara ji ak jumaa ji ak jàngale ak yare lu bon danaa ñëw ba ci bunt waaye du ko lijjanti daa nekk ci sama borom rek nekk ce yàlla nekk ca yàlla ba loolu lépp dañ fa mu samp fa daara samp fa juma samp fa daayira ak léegi nag passoir ku wax lu baax ci Kaolack foog nga boole ko ca kon loolu jëmi góor góor liggéey bi mu liggéey Serigne Touba liggéey bu rëy la ak njabootam di ko taxawee sëñ Omar njaay ak sëñ Maamor ak rek ak sëriñ Modou njaay ñoom ñi taale bi yëpp ànd ak ñoom ci loolu far leen ca jàpp sëñ Modou mooy nekk ca daara kon la sëñ ba bëggoon moom ma nga ca mooy nekk ca daara ji ci jàngale sëñ Modou nga ci waaye daayira bii li sëñ bi bëggoon ma nga mooy xasida yi sëñ yii di jàng ña ca ñoom itam kon képp ku fi ñëw ak képp ku bokk ci daayira ba xamal na li Baye Cheikh yaa nga ca loola kon yàlla na tase ngërëmal sëriñ Tuubaa ci loola te góor ga kat sëriñ Abdou Khadre wax na ne foofa ak Touba ak ëttib bi ñooyam dafa waay jëlee rek dana barkel kon foofa fu jaral nekk la fu jaral liggéey la ku liggéey Serigne Touba ku Serigne Touba nangul boo commencé boo koy liggéeyal jaaree ko ci moom Serigne Touba da nga rafet njort na Serigne Touba nangul na moom Serigne Touba nangul na ko kon ñu ngi ñaan sunu borom jokk ay leeram xalifaam bi fi nekk di sëñ Omar sunu borom yàggal ko wéral ko ndax yokk na lépp bu fekkoon ne benn la yokk ko ba mu ne ñaar fukk bu fekkoon ne fukk la yokk na ko ba mu def téeméer kon ñu ngi la xam la dimbalee la ku jàppale la bu fekkoon ne melul nii kon daayira du mel ni waaye moom ku yaatal la sëñ moo di kasaalika na ko noonu mi ngi nii kilifa la bu neexoon na damay toog ñu may siyaare si waaye dafa ànd ak waa daayira bi fu mu dugg mu dugg fa lu mu def mu def ko te doomi Baye Cheikh Ndiala mënoon na mënoon na toog tey liggéey Serigne Touba ànd ak taali bi kon ñu ngi ñaan sama borom yàggal ko wér ci ko lool ñu ñaanal sëñ Alaaji bi ay mii ndax ku jàpp ci ji la ku góor la jàmbaar la lool fu daara bi na gannaaw yàlla moom jëmam ji ci la bokk ndax da waxam waxam ju rafet ak jëfam yu rafet kon ku nekk ci daara bi moo tax ñu woon béyti di siyaara ji sëñ Alaaji dana leeral li fi nekk lépp ci àlanda ngeen baal ñoq baal na ñëpp wax yàlla na sama borom dimbali. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu. mbokk jullit di mbokk taalibe yi mbokk daara ji eh, mbokki wëlëre yi ak xarit yi ak mboolem fu jullit nekk ñu ngi leen di nuyu. di leen nuyoo ci pàkk bu tedd bi di Bokhaatoul Moubarak ñu gën koo xam ci bayti daara ji ñëwoon tey seen ziar bokk ci seen programme bi nga xam ne eh, chaque année dañuy tànn si yenn si barab yi nga xam ne sëriñ bi. Euh, jaar na fa wala am nay azar am nay jeexantal ñu jaar fa ziar ko xanaa dem nañ ci ay barab yu bari dem nañ ci njaar Jurbel njaarim dem si euh, Baxdaad euh, ñu ngi dëkk fii ak yeneen barab kon mbooleem azar yooyu ñu xenc yëpp yal na ko yàlla def tawfeex ak taysiir ndax fii ñu dëgg suñ tànk de sikk wun ni sëriñ bi daan na fi dëggu tànk maanaam di jullee foo xam ne ni amul benn sikki ne sëriñ bi jullee na foofu loolu ak tawfeex la mhm. ak ko maanaam kiñ àndal comme ni ko sëñ Bada waxee sànq di eh, jiital suñu nawet beeg siyaar bi tamit xalifa central de Mouride Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool ak wér da teg suñ buntu si moom suñ Cheikh Abdoul Khadir da ci teg Serigne Amar njaay bi nga xam ne nii lépp mooma suñ taxawee fii tey di wax eh, ginnaaw yàlla eh, ci ak mbaaxam la ak jiital ji ñu jiital si daara ji di mu doon nag ziar boo xam ne jàpp naa ne képp ku fi ñëw rek comme ni ko suñ Bada waxee ci anam bi nga xam ne nii moom lañ ko tàmbalee ak cosaan li kon cosaanu cant la. comme que cosaanu sant nag arab yi dañuy wax ne euh, képp koo xam ne da ngay sant rek suñ borom daf lay dolli suñ borom da kaa wax sax la in shakartum la asidannakum euh, arab di faral di wax ne man zaara zaada da nga dolleeku kon mu mel ne ñaari ndollin la ñu am ndollin li nga xam ne ni alxuraan wax na ko ne ku sant dinañ ko dolli te ziyaar bi cosaanam di ak sant ak maanaam jëmmi ziyaare nga xam ne ñaari ndollin yëpp dafa jaxasoo maanaam ci biir ziar bi kon yal nañ ko sa borom defal ñu si ñaan rek da ci tase ngërëmal sëriñ Tuubaa ndax ku am ngërëmal sëriñ Tuubaa rek am nga ngërëmal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku am ngërëmal yonent wa taala te ki nga euh, ma da kaa waxoon ne sa ngërëm am na sama ngërëm man man Cheikh Abdou Khadir ku am ngërëmal Cheikh Abdou Khadir am ngërëmal Sëñ Tuubaa moom la ñuy sàkku ci sëriñ bi kon yàlla nañ ko sama borom defal di sàkku mboolem képp koo xam ne nii teew na fi ak ñi nga xam ne nii teewuñ te yónnee seen at yi ak ñu bëggoon a yónnee am yëg-yëg bi te sama borom dogalu ko ñoom rek lañ boole fas ci génn bu mu yéene leen tabbal leen ci biir siyaar bi ñoom ñëpp ñu ngi ci biir mboolem fu mboolem fu maamaan mbokkum taaliba daara Touba ba daan nekk membre Touba ba daan nekk fa ak mbokkum jullit fa mu nekk ndax sëñ Touba li waxoon naa irham jami'an waraago nga xam ne nii jullit yëpp la ci tabbal ci biir siyaar responsable képp koo xam ne murit nga képp koo xam ne taalibe nga képp koo xam ne nii jullit nga rek fas nañ maanaam fasaale nañ la si biir siyaar bi nga am fi jaw fal fara lil wara misle maxaaray li suñ borom yàlla na ko yàlla def euh, ci barkeb Serigne Touba barkeb Serigne Abdou Khadir barkeb at mu bees mi nga xam ne nii moom lañ euh, dugg di ñaan suñ borom defal ñu ci tawfeex defal ñu saadatu daare ñi te def ñu dëgg dëgg murit def ñu dëgg dëgg taalibi mboole mi ñu àndal tamit ñu yàgg ànd ak ñoom yàgg ñoo fii di fi fekk Serigne bi te saa yu ñëwee rek amuk ndol leen bu ñuy del ci dewen ñu ngi jégal bu baax baax ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi fas yéene jël kàddu ci ndigalu ñaari kilifa yi ñu jiitu muy Serigne Modou Ndiaye moom Baye Cheikh Ndiaye ak seen jëwriñ Bada Mbow di jëwriñ tubaa Touba daata tey nag ñu nekkoon ci ziar bi tey muy ñaari fan nag ci muharram di ñaari fan ci at mu bees bi waaw 1446 tey muy ñaari fan ñu ñëwoon nag ziar si fii ci bayti bayti nag di kër sëñ Touba boo xam ne sëriñ bi moo ko sanc bi mu ñëwee ci dëkk bi ba sanc Touba kër googu daa daa cee teg kërug Daaru Xuddoosu gi bi fi nekkee tamit amoon na fi jàkk mooy fi ñu doon jullee nii jàkk jii ñu doon jullee fa sëñ bi duggee woon xalwatu ba gis yoonu géej gi ca la fi yonent bi salaay salaam ko fi fekkee mu xamal ko ne ko dama lay jox garaatu xutbaan ya say at sax am na lu ci des waaye cofeel gi ma sopp tax na ba dañu lay yéegal ndax mosuñ koo jox ku ko ñeen fukki atam matewul yow nag say ñeen ko fukki at des na ay weer naam waaye nag dañu la koy jox jox cofeel gi sëñ bi ne ko baax na waaye yéene naa bëgg naa lu gën loolu mooy bokk ci mbooloo mi la wër sëñ bi nag nee na boobu yonent bi salaay salaam ak saxaaba yi bi ñu ñëwee am na benn am na dara kiiraay gu woyof gu dox ci diggam ak ñoom ba mënta jote ci ñoom sëñ bi nag na kenn laa bëgg a doon ci ñoom ba liñ fa waxante ñu waxante ko moo sabab yoonu dem gi. jàkka ji nag ba gannaaw bi sëñ bi demee ba yeesalaat Tuubaa ba ne fi jàkka ji daa réeroon sëñ Mbàkke Madina moo ko feeñal. moo feeñal jàkka ji ñu ne nañ ko tabax waaye booba tollutoon nii ñu gën ko rëy jàkka ji ma nga ca biir ci biir jàkka ji ni fii ñu ñëwoon nag mooy Daaru Xuddoos ba tey ci kër gi mu am fu ñuy wax bayti ñu dajale fi lenn ci bagaasu sëriñ bi ki ko doon leeral léegi dafa wax ne loo fi gis rek ci bagaasu sëriñ bi la ñu am fetal ñu fa gis sëñ Cheikh Mbacke mi laaj ko sëñ Cheikh laaj ko mu ne ko fetal gi fetalu Cheikh du Moustapha la woon waaye leneen li fi des lépp bagage sëriñ bi la mu xam le ne tamit booleem waxande yi ñu fa gis mu am benn jàppukaay yooyu daa bokk ci sëñ bi yóbbu woon ci géej gi ndax sëñ bi bi mu demee ci géej gi yóbbaale na ay bagage am waaye bagage yi mu yóbbu woon kenn du ko jàppale moo tax ñu defoon ko benn jàppukaay nga xam ne moom moo koy yëkkatil boppam te yemul ci waxande yi kese kese am na yeneen yu nekk feneen am yeneen yu ne feneen liy laaj bi kay mooy waxande yooyu moom nan la ko daan yóbbulee boppam moom donc loolu mooy kéemaan yeneen waxande yi fi nekk itam gannaaw gi bi mu fi jógee yemul ci waxande yooyu bi mu ñëwee defar na yeneen maanaam waxande yi mooy genre gaal la boo xoolee comme ay xeetu barigo yu am kubéer la léegi nag jàppukaay yooyu mooy kubéer yi nga xam ne bu ñu ko tëjee ba pare ci ngay mën a jàpp ngir yóbbu loolu ay bagaasam la ci doon def duñ ne téere rek la ci daan def dañuy wax ne ay bagaasam la ci daan def nag am na yeneen yoo xam ne yooyu amul benn jàppukaay ay yooyu mën nañoo jàpp ne gannaaw bi la ko defar waaye loo fi gis rek dafa wax ne bagaayu sëriñ bi la am na ci suuf foo xam ne karo bi àggu fa dañ ko bàyyi noonu di ko war maal mu ne loolu dañ koy barkeeloo ndax bi sëñ bi dëkkee fii ci suuf soosu foofu mu ne exactement foofu la nekkoon moo doon barabu sëñ loolu moo tax ñu bàyyi ko fi nga xam ne kon dolleeku nañ ci saayir rek li ko sëñ Modou wax léegi ne ko ziyaare dolleeku ndax dool xam nañ fi loo xam ne ci sëñ bi xamuñ ko fi woon kon loolu dolleeku la te jolleeku yooyu day def ak jeexit sunu xol yàlla na loolu sax nag ci sunu xol nag te bañ cee jeex ñu ngi jéggalu ci kàddu yi yaakaar naa loolu la woon. ñu ngi leen di nuyuwaat baax a baax a baax kenn ku nekk sa tur ak sa sant. njëkk loolu yi ñaanal Cheikh Ahmadou Mountakha di ko ñaana saa borom guddal fan lam lool te wéral ay cëram. naka noonu nañ koy ñaanale suñu ànd moo di mel ne Fall da ko ñaanal saabaru gudd faral ko na mu ko bëggee mu ànd ko ñun <coughs> gannaaw nag bu ñëwee si moom la ñu defal ndax daara yum daanaka ñu ñëpp ñu ko xamee rek Serigne Cheikh Ndiaye di ab góor yàlla boo xamante ne si Serigne Touba moo ko fi si Kaolack te yaakaar naa kenn ku nekk déggoon na ba ba ba muy wax naan man nii maay ambassadeur Serigne Touba fii nii si Kaolack mm. gannaaw loolu nag bam bam bam ñu samp daar ji ba noppi maanaam kenn ku nekk si fii nii nii jaar nga fi si jëriñ yi nga xamante ni si ñoo àndaloon liggéey moo Serigne Alioune Badara Mbaw mii nii yeneen jëriñ yi sa topp ni yëpp daanaka ñoom bañ ci bañ ñu wéyee seen njaboot ñoo ñoo taxaw si te yaakaar naa si noon lay demee si noonu demee ba ñun nii nekk si te kenn ku nekk su ma juumul xam daal di defal te xam nga fa la seen si moom ko xawoon tasaar loola lool te daanaka xamatoo lenn si mbirum si si si si mbirum sëriñ bi daanaka lu xeetoog ay ay ay sabar ay xeetoog match ak terrain yooy yëpp daanaka da si doon def da si doon dem waaye daa xëy rek xalifa cheikh Serigne Cheikh Ndiaye gi nga xamante ne si mooy Serigne Omar Ndiaye moo ko si génnee gannaaw yàlla ndax da ko gis moromam yëpp nekk si biir daara ji moom jublul foofu noonu mu ne ko léegi léegi lii de amaana boo ko doxee noonu da nga mën a ànd ak ñii te boobaa njëriñ képp nga si jëlee. naka noonu da xelu xar yi dañuy dañuy dañuy jàppan képp nga xamante dañuy xëy def tey xëyaat bàyyi waaye moom jigéewul si dañu ko soñu saa ne ba naka noonu nañu nekkee nii ba mañ ni ñu mel nii nii. gannaaw gi noonu nag ba ñu nekkoon si ànd ak mbokki taal yi nekkoon si biir daara yi di kem la ñu mën a ànd ak ñoom nag ñoom ñu ngi siy dimbali bu baax a baax a baax si zahir ak si baatin daanaka sax suñu suñu njëlbeen alxuraan sax si biir daara yooyu nañu ko defee. gannaaw loolu Serigne Mourou Ndiaye mii nii nii moo ñu dalal ba ba ni nga xamante ne si nii daanaka wàcc nañ kaamin te ñu ngi tëralu yéen téere si bëree bëri bëri bëri bëri daanaka loolu yëpp ñu ko siy sante bu baax a baax daal amaana li ñu wax waaye liñ si liñ si liñ si gën a xam rek te ñun ñëpp sax ñoo ko manqué noo xam moo ne lii lii Serigne Cheikh Ndiaye waxoon ne daara yi de képp ku fi ne ba jóge fi maanaam fépp foo mënti demaat dañ lay ñee rek waaye fépp foo demee tamit da ngay jiitu waaye doo dellu ginnaaw te loolu yëpp kenn ku nekk si ñun nii mën na koo seede kenn ku nekk mun na koo seede koo jël nag mun na koo seede kon yaakaar naa loolu la moo gën a tuuti si li ñu di defal waaye ñu ngi santaat yàlla baax a baax rek Serigne Cheikh Ndiaye mi nga xamante ne si nii moom moo samp daar ji ba muñ see xiirtal ñu ñëpp fam bi di defende di Serigne Omar Ndiaye ko ñaanal saa borom guddal fanam lool te wéral ay sëram Mbàkke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah bilahi mina cheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi leen di nuyu mbokki daara ji ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziar di leen jaajëfal bu baax tey nag dafa to waa daar Touba Baxdaad dañoo ñëw ziare si fii mu tombee màggal sëñ Abdou Khadr comme niñ koy defee chaque année daara ji nag lim ñu defal bari na buñ nekkee fii di ko fi wax mën nañ ne du jeex ndaxte si lum ñu ju lim ñu jëlee ak lum ñu indi tey ku ñu gis nuñ mel léegi ak nuñ mel bu njëkk xam ne changement am na ndaxte passoire bee ñu nekk Kaolack suñuy morom lañ fa nekkal am bëri na si ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi si leneen peut-être loo xamante ni bokkut ak ñun liñ nekk te ñun ñu ngi sant yàlla bu baax di sant aussi waa kër Serigne Cheikh Ndiaye ñi nga xamante ñoom ñoo ñuy tàggat si lii ñu nekk di leen sant bu baax di leen gërëm parce que tey lu ñu doon rek mën nañ ne yàlla ak ñoom la di sant aussi suñuy parents parce que mënoon nañ ñoo bañ a bàyyi ñuy ñëw ay daaraak yu demee noonu ndax ñëpp xam nañ ni parfois daayira yi dinay guddee parfois aussi dinay sori et tout mais buñ leen tàggoot aussi ñoom it dinañ ñu bàyyi ñu ñëw nag fekk si daara ji tamit ay mag yoo xamante ni macha allah. ñu ñuy gunge si loo xamante ni duñ ñu gëdd duñ ñu def dara dinañu tàggat ba ba ñu euh, dinañu tàggat daal ba nga xamante ni li ñuy def lépp njëriñ dong lañ siy jëlee après ndaxte ñun mën nañ ne bu njëkk nekkoon nañ si yeneen li ñuy soloo nii daawuñ ko solo etou mais léegi am nañ changement ñu ngi nekk si diine ji di si góorgóorlu bu baax te daara ji aussi ku si mel ne yaa seedi sëñ yaa seedi mu ngi ñuy euh, dimbale bu baax si jàngum alxuraan mi ak xam-xam bi tey jii mën nañ ne lu ñu xam si alxuraan wala si xam-xam ginnaaw yàlla moom la parce que moo ñu si tàggat depuis bu ñu nekkee xale di ñu jàngal lépp lu war si suñ diine ak suñ islaam ñu xam ko te loolu tawféex la ñu ngi ko koy santee bu baax di ko gërëmee di sant aussi njabootu Baye Cheikh gi yëpp parce que nag ñoom aussi jàpp nañ si ndax ñoom ñëpp ñoo ñuy tàggat wax dëgg neex yàlla ndax bu ñëwee si daara ji ñoom ñëpp lañ fay fekk te te dinañu gunge noo xamante ni maam duñ si gis daal dara loo xamante ni métti nañu. waa ñu ngi sant bu baax nag di di leen santaat bu baax di gërëm ñépp wasalaam. عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي نعام نويت شكره عليك بخلاف وخيرها يا ذا